Ah, dama ne la élection yii ñu jëm doomu Mbàkke mooy laaj noo doomu Mbàkke mooy laaj ah soxna maam xarit doomu fan la doomu Mbàkke la dëkk Touba ah def na fi lu kenn deful dama ne ñii ñoo koy fal laa la wax xam nga xam nga soxna maam xari Mbàkke soxna maam xarit Mbàkke moomatul boppam si politique mën naa am gis-gisu personnel am mais ñun ñi di ànd ak moom lu ñu bëgg dana ko def si politique ah, moom mën naa am gis-gis personnel am wax na lii la bëgg wala lii lay def mais nag ñun njabootam lañ te dañuy politique bàyyeeguñu te gis nañ ne jàmbaar la si terrain bi li ñu fi def kenn def ko fi kon li muy liñ bëgg mu laaj ko dana ko laaj buñ ko àggee dana ko laaj te bu ko laajul tamit danañ ko indi jël ko ci góor bi na ko bëgg bëre bañ bëre waaw